signal. let again. Usman Sol. Jajaf Nara dan moy ki nga xam ni tey kan mooy ki la vision du président de la république espoir bi nga xam ni moom la sénégalais yi am ci moom kan moo incarné loolu kan kan ngeen bëgg dégg kan bëgg dégg mais il faut ngeen ànd ak dara mais les mouvements de xel bi am na xel bi am na mais il faut ngeen ànd ak dal gis nañu cofeel bi ku nekk foo taxaw rek xamal ni président Ousmane gis Disney ah, la Ce n'est pas la peine que di buuxante di difficulté tàccu leen seen bopp bu baax a baax tàccu les DJ DJ DJ Rahimah ina maliru yo I'm a ó mi Comme nous ñu le président Ousmane Sonko nous nous waxtaan ak yéen nous ko Nous ñu continuer yeneen état président jeunesse Nioro il est nous population de Nioro ñu nous vous avez la parole. le président Ousmane Sonko moi je la parole fini à Nioro du Fatalini, je vous bu à mon avis pour que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak fini, fini, présidentiel présidentiel 2024 le président ngi dit, nee asalaamaaleykum mbokki Nioro ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen président Déthié ñaane sànq ñëpp ànd ak dal parce que bëgguñu bousculade am mu am ñu fi gaañu élection période électorale, ça doit être des périodes de joie et de fête pour la démocratie. loolu ngeen war a fii tey yéen waa Nioro ndax réew mi ëppale wuñu ni jafe-jafe am na waaye dañoo nekk ci étape boo xam sénégalais bu ne day féddali kóllëreem ak cofeelam ci ki mu tànn kii mooy sama leader politique loolu nag jarul xëccoo jarul xeex jarul agression moo tax élection moment de joie la war a doon feetu démocratie la war a doon jogante la waaye jogante ci xalaat ak ci programme ak ci gis-gis moo tax yéen nitu Pastef militant comme sympathisant da ngeen siggil démocratie da ngeen siggil démocratie ndax bañ leen bëggee jaay doole ngir faagaagal démocratie taxaw ngeen def fulla ak fayda ba wane ni un peuple uni jublu ci benn objectif kenn mënu koo téye ci ay grenades lacrymogènes ak ay tëj kaso waaye bi ñu génnee ci loolu ba yàlla jox ñu ndam jaaree ko seen loxo yàqkat yi yàqkat yi rawatina rawatina ay politiciens yoo xam ne kenn ku ne jox nañ la ci chance pour nga defar réew mi nga ñëw yàq réew mi ci corruption ci jaay alalu réew mi ak ci def naka sunu loolu kon damay rendre un hommage à la jeunesse de Nioro xam ngeen dama leen remercier leen Diomaye Faye bu ngeen déggee ma ne Bassirou Diomaye Faye nag mooy candidat ba ndax man bés bi président Bassirou ñëw fii man ca laa newoon Kaffrine waaye li xew Kaffrine moo xewoon fii Nioro daf ci amoon benn historien waaye historien boobu moo manqué woon fii waaye président Bass candidat Diomaye bi muy ñëw fii gars yi dañoo taxaw fële police ne du dugg fii ci ndigal guñ leen jox yéen jeunesse Nioro yéen a taxaw di xeex ak ñoom 23 heures ba 4 heures du matin Diomaye Bassirou Diomaye dugg fii biir Nioro daanaka heure xëdd kon loolu il faut histoire xam ko.

bu ñuy lim dëkk yi nga xam ne président Bassirou gagné na ko kenn du ci bàyyi Nioro loolu am na wala amul kon gàcce gaalaama yéen amuñu seen fay ñu dellu siwaat juróom benni weer ñu ne dañuy dem élection législative waaye defe naa na Maïmouna Bousso Serigne Mbuub Boubacar Camara ñi ñu àndal ñëpp bi ñu commencé ba léegi ci wàllu caravane spontané defe naa kenn rawagul Nioro kon lii li muy wund mooy dafa am kóllëre goo xam ne Nioro fasante na ko ak ñun kóllëre nag yéen ñëpp xam ngeen liñ ci wax mooy ku njëkk wor dina ko digaale ma jox leen garantie ñun ma jox leen garantie muy sama gouvernement muy président Bassirou Diomaye Faye wallaahi duñ leen musa woo jaral ci àdduna duñu leen musa bi ñu toogee léegi juróom benn weer la ci loo xam ne xam ngeen mandat cinq ans mandat cinq ans juróom fukki weer soixante mois mooy ñaata juróom juróom benn fukki weer la juróom benn fukki weer yi dawal ci juróom benn mooy un dixième yéen waa Nioro laay laaj li jot a dawal ci lu gàtt ak jafe-jafe yi ñu ci fekk ci ni ñu sàccee xaalisu réew mi ak ni ñu naxee réew mi ci ni nga xam ne mooy statistique yi waaye ak jafe-jafe yi ñu amoon parce que yoruñu woon assemblée nationale pour mën a wote ay loi waaye malgré gàllankoor yooyu yëpp li ma la laaj lu gàtt la est-ce que li ñu defagum dal na seen xel wala dalul seen xel. kon kon ca la ca des ñun liñ laaj bëreetul de kóllëre gi dox suñu diggante def ngeen seen wàll le 24 mars laaj bëreetul de dañoo bëgg gouverner xam ngeen gouverner mooy lan mooy programme bi nga tëral présenté ko adduna yëpp mànkoo programme bii ku ko taxawal Sénégal Sénégal baax ba faw boobu la ñu bëgg doxal bokk na lu ñuy yombalal ñi doxal ko mooy ñu téye assemblée nationale ci téye bu dëgër mooy ñu téye assemblée nationale ba ñu bëggee xam ngeen li nga wax kontaan naa ci li ngeen wax waaye majorité jafewuñu ñun bëgguñu majorité ak yem ci ndax boo amee boo amee tey sur 165 députés boo amee 80 ñaata soo amee 99 députés am nga majorité ñun nag loolu doyuñu

parce que ñaar yooyu rek la ñi këpp xaalisu réew mi ak tàngu xol yi est-ce que ñooñu mérite nañu am dix députés dix députés. ma laaj leen est-ce que yéen waxtaan bi ñu waxtaan démb ci mitingu Kaolack bi est déglu ngeen ko. déglu ngeen ko. est que gëm ngeen yi

mooy gën saa gàtt cent cinquante wala cent cinquante cinq député la ñu ngeen jox ñu ko kon mbokk yi Nioro ñun bëgg nañu le 17 novembre bu ñuy lim heure bii xam ngeen 17 novembre heure bii mbir yi leer na bu ñuy lim département yi ëpp li ñu jox président Diomaye pour féddali liñ ko joxoon déjà bu ñuy lim di ci jiitu na ci ñor a bokk. bu ñuy lim di jiitu na ci ñor a bokk. gëm naa ni dina doon lu yomb ndax am na lu ñu joxoon mu dépassé cinquante pour cent te diggante ba moom candidat bi wax na ko ay maire ñëw nañu dooleeku si andi seen doole ay opérateur économique ñëw nañu andi seen doole. ay kilifa diine ñëw nañu andi seen doole kon bu doon kàttan ji benn la woon ful nañ ko tey ba mu doon juróom moo tax man awma ci sikki sàkk la ca des nag la ca des nag yéen a fal président Bassirou Diomaye yéen a war a ànd ak moom mbir mi yemul ci ay élection bu élection bi weesoo nag dañuy jëm ci liggéey réew mi jublu ci mbay mi jublu ci càmm gi jublu ci napp gi jublu ci industrie jublu ci infrastructure yi la may xaar ci yéen ndaw ñi li may xaar ci yéen ndaw ñi léegi moom dafa ne fii Jakarta rek ka fi am ñun ñëpp xam nañu capacité wala potentiel bi am fii bu ñu ñëwee ci yéen andi leen ay projet ne dañoo bëgg ndaw ñu dellu ci mbay mi est-ce que pare ngeen pour dellu ci mbay mi parce que nag bëri na ay ndaw yoo xam ne tey bëggatuñu bay xam naa ci dara man nag su wax mbay mbay mu moderne laa wax mbay bu ñu motorisé mbay bu ñu subventionné mbay bu ñu jox ndox bu mat sëkk ngay bay nawet di bay noor mbay moo xam ne loo bay ñu jënd ko transformé ko ci réew mi est-ce que yeen wa ñoro paré ngeen pour delu ci mbay mom kon kon mën na né fi di wax suba ba guddi lu ñu wax ci infrastructure mo jëm ci tali mu jëm ci ay hôpitaux mu jëm ci ay stade mu jëm ci ay lycée lépp nga ci programme bi lépp nga ci programme jox len ñu dooleel len ñu moyens ñu liggéeyee moy ngeen jox ñu assemblée nationale bu dëgër am ngeen président bu baax am ngeen premier ministre bu baax am ngeen gouvernement bu baax jox len ñu assemblée nationale bu confortable fii ak 2029 bu ñu dellu na dañuy def évaluation yéen ñepp di ngeen ne li ñuy waxanteewoon ak yéen def nañ ko. kon duñu guddal wax ji ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax guddi na. تمني ناس دا فبري يلا خمني دايلو ماتين يلا خمني ملن مدان رك ملن مدان رك يلا خمني man damay wax loo xam ne yàlla rek laa ci jël seede boo xotti woon sama xol bi kenn ku nekk ci yéen yaa ngi ci biir mu leen xam li ma leen bëggi su may xëy su ma ngoon jot lu ma daj ngir yéen la su ma sañoon lañu fanaan ba fajar di waxtaan li ma leen bëggee dama ci boole jeunesse senegal bi waaye li ma leen mën garantir mooy une nouvelle page est ouverte gis nga Sénégal gii gannaaw yàlla kenn mënu ñoo tere ñu defar ko kenn danañ ko defar ba mu ne cëcc ba baax ba kenn dootul xalaat mbëkk kenn dootul xalaat génn réew mi kenn dootul toog di am njaxare alalu réew mi delloo ko si ci réew mi mu jëriñ waa réew mi ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum